nekk sa tur ak sa sant man maa ñëw tey pour def point de presse bi conférence de presse bi par rapport ak li nga xam ne moom mooy xew waaw léegi man li may wax dans un premier temps mooy maa ngi jéggalu ñi nga xam ne seen bakkan def cee rot ak ñi nga xam ne dañoo cee gaañu ay gaañu gaañu ndax man bu ma sago bu fekkoon bu bu fekkoon ne bu fekkoon ne du bu fe bu fekkee ne du sama sago bu fekkoon ne sama sago li lii yëpp du demee nii. waaye maa ngi jéggulu di tuub bu baax ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am ni ci gaañu léegi dama ñëw pour wax leen ne vraiment man affaire bi pour mu leer sama côté laa gën a bëggee mu leer parce que moom président Sonko mu ngi génn di dox ay soxlaam te man mënumaa mënumaa dox samay soxla te li ko tënk pour mu di dox ay soxla man ma tënk ma bañ dox samay sox samay samay soxla tey nag moo tax ma woo presse bi yëpp pour wax ak ñoom ci li nga xam ne pour wax ak ñom ci li nga xamné moy moy lima bëgg wax ak ñom pour mu leer ci sama digënté ak président Sonko damay jël question yi par rapport ak li nga xamné mom ngeen bëgg xam ci affaire histoire bi nan la nan nan nan la wa wa hein wa wa wa ma ngi wo journal yi pour féké dafa am ño xamné dañu bëgg xam li ñuy laaj mën nañu ñëw ma bu ñu laaj waaw bu ñu laajee may waaw bu ñu laajee may tontu. salaamaaleykum. salaam. Euh, mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëw fii nga xam ne fii la ñu fekk si ki nga xam ni mooy Adji Sarr Adji Rabi Sarr wala Aïcha noo leen ko déggee rek noonu la noonu la tudd lañuy ñëw fii indi ay leera parce que dafa war a wax moom mi nga xam ne daal lëmbee dëkk bi daal di koy taal dafa war a wax Adji Sarr ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. maa ngi kontaan kon ni ma ko waxee rek ci commencement bi. Mhm. maa ngi fay ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. Mhm. di xaar ngeen laaj. pas dara méttiwu la. déedéet maa ngi maa ngi sant yàlla. waa aji aji dëkk bi tàkk na de. Mhm. waaw tàkkoon na jëpp. aji fi mu toll ñu ngi ci treize morts. plus de six cent blessés six cent blessés. aji loolu nan nga ko dundee ba nga toogee sa biir kër di dégg loolu ak di ko seetaan. man su ma xamoon ne affaire bi fii lay toll duma ci dugg parce que tamit vraiment lii du demee ni mu ko bëggee woon ma li ma li vraiment waaw loolu daal maa ngi masawu ñëpp maa ngi maa ngi maa ngi masawu ñëpp ci loolu. Hmm. waaw. man maa lay posé question wala dafa dama gis ngay yéex. tontu waaw ah. te damay bëgg bañ a def. waaw waaw léegi yow fi mu toll nii dañoo bëgg nga tontu ñu mu leer. xoolal internet yi ñu ngi lay seetaan ñëpp a ngi lay seetaan à travers le monde àdduna wëngal këpp mi ngi lay seetaan Adji dañ laa violé waaw wala déet. man daal li mu mën a wax daal mooy Sonko. Mhm. son président Sonko bu fekkee ne mën naa ñëw waat ne musul seq ak man dara man boobaa ma ma ma dindi ma retiré ma retiré sama plainte. waaw ma Adji sekk bi waxaguñ ko dañ ne dañ la violé waaw wala déet. man daal mun naa waat sama sëriñ di waat tamit ne bu fekkee ne Sonko mën naa ñëw taxaw moom tamit mu waat ne mu sot seq man dara man boobaa damay retirer sama damay retirer sama damay retirer sama plainte. waaw kon ñu ma bàyyi question boobu ko que question boobu nangu woo koo leeral léegi liñ ci liñ ciy tegaat mooy la bëgg nañoo xam ndax menace de moor bi am na wala amul xool xoolal ma internet rek nga tontu leen parce que wax ji dafa dafa lëndëmal xel yi aji ma dala menacé waaw wala déet ak ay am na. Não, moom. aji dafa am lu xew. non moom menacé wu ma de mort. léegi fil bi não bëgg a xam pour lan fil bi. kii filu micro bi nekk sa biir yére yi. filu micro bi moom la filu micro la. Ah, micro cravate bi la fil bi waaw fil bi la mais yow nii ngay a tontu di di kii di kii. waaw moom moom moom moom menacé wu ma de de mort de. lan moo la métti. Oh, wax ñu ko léegi ñu xam lan moo la métti comme que yow viol bi wax naa la nangu ci cee àddu nee nga menacé wu la te yow li nga xam ne loolu la toppee président Ousmane Sonko mooy lan viol ak menace de mort léegi ñaar yëpp nangu woo ci indi leer nee nga menacé wu la viol bi xam naa ne ni ngay waxee ni leeru léegi yow lan moo la métti ba nga ba nga ba nga plainte ko kon. Sonko président Sonko dafa jaaroon fee man ma jaar nii. après mhm. mu jaar nii. Mhm. ñu bu jaaree nii moom après mu jaar foofu. nekk ci foo après waaw dafa jékki-jékki rek. aji ma gis ko sama da ngay ndax sooy wax dëgg da ngay relax nga bàyyi sa yaram bi nga congelé. mu ma ne dama ne munoo di liir di déglu. dama mel dafa nekk sa noppi di wax déedéet liiruma de parce damay tontu ci question point yi ma wax yi nga xam ne moom la nga ma laaj moom laay tontu. mais pourquoi nga may yéex a tontu man. waaw parce que li ma war a wax la dama ne Sonko dafa dugg foofu. man mm. ma dugg foofu après mu taxaw après ma taxaw. Mm-hmm. après ma jékki-jékki rek gis ko sama kaw. <laughs> léegi ba nga ko gisee sa kaw da nga ko bu ma waaw walla déet nan la demee. aaji ci tele laay waxee moo am na yoo xam ne du ma ko expliqué. waaw doo ko wax ci télé dafa dugg nii rek ma dugg nii rek. mais mën ñaata yoon la aji parce que ñeent la sa mm-hmm. avocat ñeent la wax. mun ko compter ba parce que yëpp dañuy tase day dugg nii rek mu dugg nii après mu yëg sama kaw. <laughs> non mais aji mais aji est-ce xam ngeen waa Sénégal da leen leen télécharge te da nga leen yëpp nag aji mais aji sa avocat yow nan la mënee nekk sa avocat ñëw taxaw ne ñeenti yoon yow nga mënoo koo compter mooy lan. dafa bëri parce que moom day génn fii. day dafa bëri waaw wax maa ngi ñëw bu ñëwee. après mhm. ma ne ko maa man tam maa ngi foofu bu ñëwee ñu tase après mu xool ma ma xool ko après liy jékki-jékki lampe bi fay rek. waaw parce que damay bañ ñuy wax loo xam ne man waxuma ko woon fële. parce que maa ngi dégg affaire pistolet yooyu moom moom yorul woon pistolet. kon menace de mort bi daal mën nañ ne amul benn deñ benn benn chef d'accusation deñ mu des viol bi viol bi am na waaw walla déet tontu ñu rek aju ñu dem parce que ñun ay mag la dañoo sonn si wax ji. moom moom buy ñëw daf may wax na ma. Euh, nga xaar ko Adja foo nekk maa ko maa ngi place. non boobu yow danga am numéro Sonko Sonko nee amul sa numéro yow amoo numéro. patron bi lay woo patron moo may wax ne ma Sonko nee na mu ngi ñëw. léegi yow nga xam ne kii ñëw dalay lay nga toog nga xaar ko daal mu ñëw daal violé la daal déedéet moom day ñëw dugg nii man ma dugg nii après ñu daje nii rek ma gis ko nii sama kon moom dalay fekk ci yoon rek këf la dugal la ci biir salle de massage suñu complexe aji ah waaw waaw du ma a tontu ci loolu ci tontuwaat doo ci tontu léegi yow fi ñu toll nii sànq dégg naa ngay wax naan xaw ma sama lii dama aji wax ñu leer da nga ëmb wala ëmboo parce que dégg naa nga naan dangaa ëmb da ngay jafté ni aji fekkee am ko am goro ci sal bi may mo goro. ni fi yoruñu ay goro. temps bi presque jeexna na ma. aji da nga ëmb wala ëmboo. man da da nga ëmb. temps yé paas dama don ma Dakar ak yoy mais mel na ko ma da hmm waaw da nga ëmb wala ëmboo aji. aji ngir yalla tontu ñu dañoo sonu ci wax ji. waaw duma ci mëna tontu. eu não mën a toll. sama vie privée la maa koy garder pour. lii kay nekkatu vie privée fii ku dee ci masta ba yaa tàggee eu bopp léegi aji. aji. président Macky Sall mës nga ko gis waa wala déet. musuma ko gis musuma gis eu fotom fotom nii eu ko gis xaw ma sax kan ma. aji <laughs> photo nga wax. mosuma gis photo président Macky Sall xaw ma ko tey xaw ma ko ëllëg nii de loin nii de près. mosoo gis photo mosuma ko gis damay wax dëgg rek. ñuy wax ne damay dem si président Macky Sall wóor na yàlla man mosuma gis Macky Sall ci bët du ci télé. waatal du ci rajo du ci photo du ci télé. nga ñu loolu ñu du ci télé du ci rajo du ci photo. Mm, doo du ci télé du ci rajo du ci photo mosuma gis Macky photo mosoo koo gis léegi Sidi Ahmed Mbaye lan nga mën a wax ci moom ndax nee nañu sa xarit la moo la jël si moo la indi lan nga mën a wax ci Sidi Ahmed Mbaye comme que moom jour bi ba mu amee moo la jël si yóbbu la hôpital pourquoi yow demoo hôpital principal bi nga xam ne fa la la fa la la enquêteurs yi orienté. aji. yow demoo hôpital principal bi nga xam ne enquêteur bi fa la la yow ban hôpital nga dem parce que yow beneen hôpital nga dem ban hôpital nga dem. man daal dama yeewu gis sama bopp hôpital xooluma buntu bi luñ ci bind waaye maa ngi gis naa daal lu tax yow ba nga bañ la nee. andal leen ak enquêteur bi dem leen hôpital principal fi nga xam ne foofu la recommandé yéen ngeen dévier ki ngeen àndal dem dem ci beneen hôpital loolu nga pour lan la. man daal li ma mën a wax sénégalais yi mooy. li ma mën a wax ah, sénégalais yi génnewu la ci nag dafa yomb wax sénégalais yi mooy. Mhm. ba ba muy leer bu fekkee Ousmane Sonko mun na toog rek wax ne mu waat ne moom mosuñu sekk dara ma ak moom su ko waatee man ma dindi sama plainte. yow waatal ni da la violé. waaw bu ni da la violé. bu ko waatee daal ma génn. mais yow waatal ni da la violé moom mu doog a waat ne violé wu wala violé na la. du ma tontu ci loolu. ah doo ci tontu. léegi aji mën nañu xam ndax yaa ngi dem hôpital am nga médecin bi lay suivre gynéco wala am nga carnet wala yooyu ñu xam parce que apparemment da nga ëmb wax nga ko léegi ci biir. a wax déedéet ah, yaa wax waxuma bu ma waxal lu ma ah, wax. ne loolu sama la man la concerné. mais aji avant yi du ko jël yaa ñu wax léegi ci biir da nga ëmb ba dugg nga wàcc ba génnaat mais wax ñu lu lay seetaan léegi am nga médecin bi lay am nga carnet de kii. loolu suma vie privée la. aji lii mi ngi ci mbedd bi de. déedéet man fii fa foofu laa mën a yem ci laaj daal li ma mën a wax daal ci gàttal. mais aji léegi ma waa si gàttal li ma bëgg a xam mooy est-ce que yow comme que kilifa yëpp wax nañu kilifa diine yëpp wax nga ñu kenn ci ki ñu mën a lim mooy la sëñ Mountakha Mbacké kooku est-ce que yow doo rus nit ñi sax am complexe dindi plainte bi comme que yow viol bi waxoo ci nee na menacé wala de mort te loolu lañ koy toppee doo retiré sa plainte wax ci jeex. nga yërëm sénégalais ngir yàlla ak yonent bi man defuma dara lu dul dat ñëw wax ne bu fekkee président Ousmane Sonko indi na kaamil mu waat ne ma musul sëq man dara man boobaa ma retiré sama plainte yow ñu indi la kaamil nga waat ni dara violé waaw parce que am na loo xam ne il faut nit ñi xam ne man tamit doomu jàmbur laa boobu ba léegi ñuy wax Adji saar jàppal Adji Sarr bàyyil doomu jàmbur ca fekk ñu la say kër mbokk nga toog aji dama bëgg jooy <laughs> téléspectateur <laughs> mbokk internet yi sax laay wax may leen ko mu jooy ba pare su joy ñu doog koo laal da nga bëgg joy jooy. joy, bëgg jooy tuuti. léegi ñu dem ci biir nga jooy. damay jooy tuuti. sa biir bi bëgg sama vie privée la. sa bi est-ce que deful huit mois. waa ji jëm ni waaw waxal ak mbokku internet yi nga xam ne ñu la di en direct ci Leral TV.

moom président Sonko buy ñëw daf may woo woo kii xaddi mu ne ma Sonko mu ngi ñëw bu ñëwee rek aji wax ji leerul de. maa moom musuñu wax da musuñu wax affaire vie privée musuma ko wax. moom su ñëwee dara waxtaan ak yow waaw wala déet. da dafay ñëw rek ne ma sama jabar bi dañoo am problème même démb bi may génn sax ma nga bàyyi mu sol robe rouge di ma jéem a mu yow yaa ko daa ko solu yaa ko gën a rafet yaa ko gën a son. nee na man maa ko gën a son sax. maa yow mii yaa gën a son jabaram. maa gën a son nee <laughs> jabaram sax. dee dóor la. waaw nee na moom affaire voile yii nii daf ko neex. mais yow yow tey ngay doog a voile. waaw ma wax na mosoo voile. Sonko parce que lii waxoon na ma ko. léegi lu tax nga ne il nekkul nit ñi ñoo nanguwul yenn wax yi rek parce que say wax dafa leerul say wax dafa leer parce que yow munoo di nettali li nga dund di liir ay kayit di wax ci ay écouteurs. tamit fii lii de langu fu ne si yow la wër fi noonu dafa bëri ba ku la jege dee faqas tamit tamit li li ngay dund boo koy boo koy nettali da nga war a nekk à aji wax ñu lan moo xew moom yàgg naa toog wax ne ma ni nga rafetee nii mosuma gis jigéen bu rafetee noonu yaa dàq sama jabar dàq sama rakku jabar yaa dàq sama Sénégal yëpp yaa fi dàq mu ne ma affaire kon moo tax kon yëf yi moo tax daal saa bu ñëwee nga nangu ko ko mu nekk plusieurs fois. daf kon fi toon xanaa sa xel daa nekk ci pale moo tax nga daal di koy indil kii nii daal di daal di def affaire enceinte affaire yooyu noonu. parce que toog na di xaar bu ñu ëmbal la moom metti na de. moom sama vie privée la. Hmm. léegi ban message ngay lancé wax ak lan ngay wax justice lan ngay wax président Macky Sall. ñu ngi lay déglu man xawma Macky Sall gisuma Macky Sall. naa ah, Macky Sall mais njiitu réew te lii nii justice justice moo ko yor. te moom mooy chef justice yow wax ko lan nga bëgg mu doxalee problème bi. lii mu réglé ko wala da ngay retirer sa plainte waxal waa wala déedéet. ñu def mu retiré sa plainte moom il faut mu ñëw taxaw waa parce que man Sonko moom bu waatee moom du waat parce que yow waatoo ni da laa lu tax nga bëgg koo waat la yow waatoo ni da laa violé ñu dem seeti ko léegi mu waat du ma ci mën a tontu waaye moom ah moom tamit du ci mën a tontu parce que waatoo man ma jóge fële ñu tase foofu hmm. après damay toog rek